doon jàngee ci daara yi Serigne Cheikh Mbacke ibnu Serigne Mountakha ba yàlla def ñu bind kaamil foofu ñaari kaamil te lépp mu nekk ci daaraam jolu ñoo bindoon taalif bii nag ngir xam la ci jaar-jaar yi Serigne Cheikh mi nga xam ne moo bind livre bii nga xam ne moo ñu fi dajale tey baxru bi nekk ba rajas ñuy ñaan ñëpp ñu teewloo ndax ko incha allah bismillah bismillahi ma jub di wax soodaani tey ki fi raw fi sarqi wal bidaani laa bëgg a way xam lay mbiram fi naasi sayxul xadiimi mësta def aw baasi moo jara xam sulliy mbiram moo kiilu sibtu basiiran Mustapha doy wóolu ma wax la nag way jur wa wax fam ballu ci géeju xam nga xam ne kii daa njoolu meññan ma yow sëñ muntaxaa mi jiitu moo ko rotal taara raw yaa soxna si yiw tañ di ko wax Mariyamu moo di ndeyam daa mës a yiw tey sàmm ngëbal ma wax sëriñ si yiw yam rootu ci géeju xam nga xam ne kii daa ëttu yaarama raw fi ilmi wal burhaani négal ma wax fam laxasee quraan sëriñ abi boo ko xamal quraan sëñ baara jël xamal ko ay diiwaan yi moo ko xamal xam-xam yu rëy sëñ baara mu sëñ abibu lañ di wax sëñ baara daaru minam saalum la sax tey rootu sëñ baara mi moo ko xamal bam xóotu jurbel itam sax na fa ngir xam-xam lu xette ju rëy la ko jox ngir njoolu bam laxasee fànd yu rëy fil mi boobee la jug saxoo xamal waa réew mi tabax na fi école ki ay daara yaxal fi teg sëriñ bi yow sakkaara daara ju rëy la def minan fooraasi sëriñ bi yow jiitu nga tey kuy raasi sëñ Mortada mu mag ma sax moo ubbi daara ja def waa ju fa ñëw doo rëbbi école ak kii informatique tey sàkku lycée bu rëy lay bëgg a def ngir yokku xette ju rëy la fa di jox xam-xam bi moo ma xamal setal ma duy saa bi xamal nañuy xam-xam yu rëy fit diini tasiira it moo ko xamal soodaani moo nu xamal basiiru fi sutóori téere la yow mustamilun bin nóori bii la defal maamam jaraw yi sayxul basiiroo gën a raw koy naani bam matalee la fab ka way jur wa sëñ muntaxaa la fab jox muy xarwa sëñ muntaxaa toppal ko bég ñaanal ko fukk ak juróomi fan la am àggal ko fukk ak juróom itam di bis ba ngóolu sëriñ bi ngir takkal ko ay lux loolu saalam bu yiw ba muy durus quraan yi woo sëriñ bi ñëw diiwaan yi way jur wa bég ngir la mu def maa fuglu ñaanam yu rëy yam ko defal doy wóolu lam ko ca wax demal ca fis su tóor yi ndaxam nga gis wesar wa yow fil jahri naafar taxaw xamal la ay téeréeti yum fi yaxal nga xam ne kii moo limal ma way xulaasatul miiraasi moo ko yaxal moo gën a raw kuy bax si wa ahmadul xadimil xaa di moo ko way rootalte duy min maa taalif na it téere bu rëy fi siira way na ca daam ak fu masa aw moom jaara xamam gi ak jëfam gi ak sellam gi moo tax mu raw ba jiitu farmaasam gi innaka xat foxta fahuulal xilmi إياهم كان عروف الميم لاستقعهم في الذهن والأقلام كمل نكي كمم أمول في العلم moo fi taxaw tey sàmm luy islaam yi xañ nga ba ñëw xumra taxaw imaan yi tabax jumaa taxaw fa yaw doo saqi waxtu wu jot nga jiite yow doo toqi xutba itam moo ko di jox waa daaru minan xamal ma wax la lëf ngay waaru ndakaaru tam moo fa taxaw hiidaani korite ak tabaski max quraani académie moo fa taxaw tey wattu luñ fa di wax ak di ko jëf moo jiitu aajeeni tam ne moo ko gor waajal ko saxoo bayal sëriñ bi lum am jox ko lum ca di am du tee du fas ngir kiinu bëri alal walay oto mbaa bal lum ca am fam na ko yot way jur wa lii ma fi wax ku xam mbiram duy xarwa xarwaay yow dajeg sarax day teewi ku ñëw mu jox sekem amul mi réew yi ñëw naa fi yow rootal ma duy saanday yaa mën a may ku ñàkk ndox bul tay joowal te ñëw su may labit fil ismi xeqil ma jañ balaay yow fil yow mi nappal ma tam ci géeju yiw am raani mujj gu musal ma ci xusraani